Monsieur Papa Sow vendredi 21 février au Stade Marius Ndiaye en direct sur ITV avec des artistes de renommée ngir dugg foofu nag yomb na demal ci sa Play Store wala ci Google Play nga télécharger Agricash Agricash votre porte-monnaie électronique pour toutes vos transactions sur mobile. La banque agricole. ngir ngeen yónnee wala ngeen jot xaalis wala boog ngeen fay ci seen ay facture kon nag noté leen ko face to face Siteu Papa Sow vendredi 21 février au stade Marius Ndiaye en direct sur ITV ay artistes de renommée dinañ fa teew ngir dugg fa nag yomb na demal ci Apple Store wala Google Play nga téléchargé Agricash boo ñëwee ca bunt ba nga wane sa portable nga dugg ci biir. ñu ngi leen di fay. ñu ngi di laaj du sama jotaay bi fii ñu ngi leen di delloo ziar di ginnaaw bi jullee li ñu fi indi mooy xam nañ ni comme dañoo association indi nañu suñu papier yi ñu war a affilier yëpp mais daf ci am benn loo xam ni falee ñu waxtaane ko pour mën a finaliser loolu loolu moo fi indi waaw. ndax mën nañu xam loolu lan la. waaw loolu c'est interne ak CNG euh, bi loolu moom c'est du affaire bu bëre mais ci affaire administration kon daal li mën a jàpp mooy norme yi tax combat bi yëpp am yow seen côté matal ngeen ko. waaw ci kàttanu yàlla matal nañ ko waaw. Hmm. nan ngeen nar a waajee nag seen diggante ak Siteu ndax ku ne xam ne na papa dafa sos lu bees muy écrit écrit nekk loo xam ne lu am solo la ci carrière muy premier sortie nan ngeen ci nar a waaw xam nga gone gu juddoo Fass màggee parcelle ñi la wër dëkk juddoo ñaari tali ay pression yooyu moom c'est bon ñu yóbbu ko fële. waaw soo presque li ko desee ci làmb euh, li ci des waxuma ne tuuti na mais bëriwutul boobu bëri mu ngi ci presque est-ce que amul quarante combats wala un peu moins de 40 combats am ay plus de 27 victoires parce que victoire yi mu am Dakar la ñu compté mais làmb ju officiel mu bëri ay serge bu Thiès. match ñu fa ak seen Cheikh Niang doom Boy Niang am fa 4 victoires kenn boolewu ko ci compte compte victoire yi ko ci boolee am na plus de 27 victoires donc kooku du ay pression bu benn làmb noonu. leneen li ñu ci sof rek mooy ku ne xam ne ni combat bi Pape Dufal moo ko organisé te dégg condition yi mu ci nar a ak yéen muy ñaari camp yëpp yéen ci côté mobilisation parce que soxla na loolu nan ngeen ci nar a taxawee. ah danañ xam nga ku bëreeg si kuy bëreeg si te moom mobilisation c'est nga xam ne nii. am nga problème ndax nit ki wax sa baaxu moroom du la wàññi sa baax dara yàlla ci mbër yi mu may mbooloo si te ci la bokk mais suñu côté on va faire le maximum ba nga xam ni danañu indi mbooloo stade incha allah yaa ngi wax sànq ci ci wàllum pression Papa Sow léegi am na expérience ak yooyu ñu gis na ay événement yu mag yoo xamante ne Papa Sow mën nañoo wax ne moo ciy daan boppam nga xamante ne day ñëw lutte pour mu lucide ba mën a aborder combat expérience am bu ñu gis ni mu mettre ko en exergue est-ce que Papa Sow mën nañoo xaar combat bi mu ñëw indil ñu loo xamante ne mën nañoo wax ni carrément màgg na ci làmp expérience am euh, voilà. waaw loolu mooy li ma xamal boo nee bu jegee phase. Mhm. pression te fa la daanoo yooyu yooyu jël ngay wax n'est-ce pas. Mhm. donc kon du génn bi sos leneen du day xëy day wàññi sax pression. Mhm. donc bu ñëwee par rapport à ce ma wax ko waxuma ko keneen wax ko ñëpp xam nañu expérience ci côté Passaw la nekk jeunesse bi ci Cité la nekk Passaw moo war a def li mu war a def ba bëreeg moom ci li mu ko magee ci bëre loolu mooy loolu mooy. non bu doon Passaw la du génne équipe Fass parce que lu te lutteur seul lutteur de Fass bu juddoo Fass musul bëgg génn écurie fas c'est-à-dire man c'est l'occasion qui fait mais bu doon moom rek du génn écurie fas <coughs> jox nañ ko lettre il l'a lu peut-être il a pensé que ne moom su defee croix jox leen ko dañ ko koy delloo woo ko ndeke du woon loolu mu am ci xëy na incompréhension boobu loolu la mais bu doon moom rek du génn écurie Fass non c'est pas mieux vaut tard que jamais lu jot rek yomb. ah je sais pas si xam nga relation personnelle ak waa Fass bon moom moo koy dox man xaw ma relation yi ma amoon ak ñëpp moom laay garde ak ñëpp c'est-à-dire euh, respect moo am sama ñeme moom ñeme par exemple si je prends le cas de du président Abbas Abbas Ndoye mais ñeme wax ne Abbas beneen moo budul Abbas nit ku baax loola ma woon ñeme wax beneen moo ci mbéy lu nit ku baax loola la woon mais le reste nag non am na commentaire yoo xam ne du ma ci dugg quoi je préfère ne pas en man maa man maa sut loolu sut naa loolu. mais on a l'impression que ci combat bii nii saa yu ñu waxee waxu Fass muy Papa Sow muy encadrement bu bees bi da leen di jël ak cœur réponse bi sax dañuy sentir nii dañ di répondre avec le cœur métti na leen Fass bi indi mais est boo leen ko jiitalee. tout le temps di préparer combat bu mag bis bu mag mu nekk loo xamante ne car euh, déterminant la ci carrière Papa Sow est du leen tardel xam nga bu soo waxee ne buggul woon génn après nga génn bi naxariw ma kon du parce que nee nga buggoo génn dàq nañ la neexu la loolu mooy logique foofu la ñuy waxee mais du parce que dañ ci am non noonu man à base vraiment. ay Thierno Dramé ñoom ñëpp nous avons de très très yi moom laa amaloon ñoom. je garderai ces relations là. man du ma wax lu ma gëmul du ma def lu ma gënul loolu lu ma gëmul ñaari teel laa juddoo màggee ñaari teel ba toll ni ma toll. parce que wala ak day bay xàmmeewu ma ci benn boo ma jox ma ci. père ba ñu gis ne waa Fass daa nga sa loxo ci biir Fass delli jàppale. parce que ku mel ne Papa Sow cité na ko koro ba ci combat Gris Bordeaux Balla wax na ay jàppale yoo ko doon jàppale. Papa Sow génn Fass créé boppam ndax na nga daan jàppale waa Fass da nga koy def wala da ngay ñibbi sa kër toog benn yoon. loolu daal je préfère man su may jàppale koo mën a jàppale ci àddina yàlla moo tax ma koy def du wut tur du nangam du nangam loolu moom je préfère ne pas en mais bu ngeen seetee bu ngeen xoolee ci euh, bantamba bi passé di ngeen ci gis mbëru Fass mu ngi sama kër loolu junj doy na doy na borom xel bu ngeen xoolee bantamba bi di ngeen gis mbiru faas mbiru faas mu ngi sama kër samay doom la ñu daful affaire écurie samay doom la bi nga xamante ne la pression ci ñi lay pression day dal ku un bleu day dal un poltron xam nga la couardise moom est une maladie qui se guérit jamais mais bu nekkee bañkat nga xeexkat nga génnee nga yooyu moom vraiment du ay il viendra mais mais très relax bëri li muy bëri day ñaan yàlla yàlla muy joxe ndam yàlla may ko muy demaat suba euh, war a jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy Siteu mobilisation bi nan ngeen koy waajalee déjà parcelle nekk ci ginnaawam loolu nan ngeen di waajalee mobilisation bi. ah ñun parce que ñoom xam nga Fall Fall si ñoo dëkk suñu ko tëgg ba ñu bëgg a toog naan ay jël nañ xaalis danañ toog non on va faire le maximum. pour demee ni ñuy ñëw en masse ñëw foofu mais pour mu nekk spectacle. parce que nag en attendant ci li xew passé aussi dara moo fi affiche bu mag leneen amu fi. Hmm. ci li ñu li wóoragum. Papa Sow ak Siteu ñoo fi moo fi nekk affiche donc il faudrait que suñu côté ñun ñu xataraayu def le maximum mais pour liñ ci liñ ci war a def ñu def ko loolu mooy yoon boo ko séqee ak sa nawle bu defee li mu war a def da nga war a góor góor yow sa kéemtalaay kàttan jéem a def li nga war a def on va faire le maximum on doit rendez-vous à tout le monde demain suñu soppe Paso soppe Siteu ak ñu bëgg làmb yëpp ñu bëgg Pape Abdou Fall ñëw stade euh, demain mais dans la discipline def li ñu war ñëpp après ñibbi ñu jëm arène nationale te ku ne xam ne ne fi làmb toll soxla na mobilisation mais soxlawul violence ki ko tëgg di promoteur boo xam ne exemplaire la ku mën bis kuy dox social làmb ban message ngay lancé ci ñaari camp yi ndax arène nationale gis na dimanche pale passé la fa xew ban message ngay lancé ci ñaari camp yi waaw xam nga arène nationale moom même bu nekkoon amul sax barrière acteurs yi bu ñu normalé rek dara du fa am même sans force de l'ordre saa ñun ñoo war a discipliner mbër yéeg encadrement yeeg euh, ñëpp quoi ñuy tourner autour ci euh, euh, ci ci ci làmb li ñuy wax rek mooy muy sunu camp muy camp si te ñun paasoo kenn musu ko dégg événement boo am ay histoire il viendra à l'heure def li muy def dans le respect ñuy ñaan képp ku ñu ñëw nga bokk ak paasoo mbaa nga bokk seen mbaa nga nekk keneen Euh, li li discipline daal la ñuy laaj pour ñëpp na ñëpp am discipline bon ñu def ko ci fair play pare préparé nag le 5 avril incha allah. papa écrit bu bees nan la nar a dugg ci làmb entraînement lan la war a indi lu ñuy xaar ci papa. comme li ba sottee bu njëkk. lu muy indi paase lu muy indi xanaa ah, yow tamit loolu moom li mu laa indi lay indi rek buy tëgg. 5-5 koy tëggal ñu ko doon tëggal ñoom ñoo koy tëggalaat seex Ndiaye mooy manager ñun bàyyiwuñu dañ ñoo dàq kon képp ku ku ñu àndaloon te nga bëgg ànd ñu dañuy yow. bu ñu bàyyi woon dañuy créer mais dañoo dàq mais bu ñu dàqee nag ku bëgg ànd ak ñu ci ñi àndaloon mais dañuy kon ne ànd. cinq cinq mooy cinq cinq cinq cinq cinq mooy tëggal. Père ci biir wax ji nee na bàyyi woo leen dañ leen a dàq. waaw léegi Papa Sow du bëri waa Fass mais équilibre bu amee beneen mbër boo xamante ni bëgg nañ seen combat waa Fass dinañ bëri wala déet. waaw yow yow loolu kay xam nga na na Pape indi avance léegi nga xool. <laughs> man damay dama doon café chaque fois di wax ne. ku ma fay millions yu bëri sax ma bëri ak sama pap eh. damay café damay café damay café loolu damay café loolu. c'est-à-dire bokkatuñu dara rien ne l'oublie. Hmm. absolument rien. waa ak Fass absolument rien. Ah, waaw dégg nga li wax bëgg nag nga nga xalaat li ma wax sax ay foo ko indi rek foo ko teg. dugal ko foofu foo ko teg absolument rien. leer na ni heure bi. waaw ah, soo sax mën na bëri waa Fass. bu eh, eh, dee plus clair Papa Sow mën na bëri waa Fass. Ah. Papa Sow Gris Bordeaux Papa Sow Gris Bordeaux bu ñu leen seet si waaye déggul ma xaw ma surtout ma kenn. Mhm. surtout ma kenn j'ai dit clairement. Papa Sow mën na bëri waa Fass. Mhm. Père Ba suba première sortie est-ce que sañ-sañ dina ñëw. waaw waaw dañuy ñëw ànd ak moom. waaw comme wax nañ ko fii waxaguñ leen ko mais on va faire on danañ indi sañ-sañ ñëw suba. ah il faut il faut euh, waxaguñ leen ko mais danañ fexe. comme noonu la toll il faut ñu ñu ñëw. faral ko ci kaw ci suuf ci biir ak partout ñaan ko yàlla combat bi mu jëm yàlla may ko ndam. Modou mooy Papa Sow Papa Sow mooy Modou. mais Père Ba dañoo gis ni seen problème ak waa Fass lu bari Modou moom moo ko indi suñu juum ndax depuis combat ak ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux affaire yi commencé am léegi après ngeen ne pare ngeen tamit pour ànd ak moom kon est ce que nekkul beru bi ngeen beru tamit leen muudu kii tamit amul dara lu mu leen kii lu nañoo wax ni seen dàq bi leen dàq waa moom moo ko indi ndax combat mbaam ak Gris Bordeaux que le meilleur boobu noonu après tamit ngeen beruwaat ne pare ngeen pour faral Modou kaw ak suuf kon li ngeen waxoon démb ak bëkk démb ba léegi jugoo woo leen ci ah duñ ci jóg sinon euh, euh, euh, sinon benn tooy doon xeer. Moodu à vie moom la ñu faral. ku moom la ñu faral. c'est clair. merci bu bëreeg waa Fass moom Moodu la ñu faral. boo leen bëree Moodu la ñu